suura jamra mosu see jóg kon nag bi coow King Fahd Palace bi amee mhm. ñu def suura woo naa Wally Seck jotuma ko ma woo yaayam parce que maag yaayam euh, jokkoo woon nañu en 2016 mhm. bi fi Wally Seck indee dégg nga saagam affaire saag mhm. di soxna su baax soxna Kiné Diouf Diaga ma di ko yërëm fu ma ndax njaboot njaboot dafa metti da ami angoisse insomnie surtout su dee sa doom day yëngatu dans l' public. Mm-hmm. waxtaan nañu ci suuraa bi Jamra waxtaan na ak ñeneen jege ñaale Wally Seck mënuguma wax fii seen tur. Mm-hmm. ci suuraa bi Jamra waxtaan na avec les organisateurs. Mm-hmm. Tange Tandian moo organisé affaire bi mook Mati Jaxate ñoom ñëpp ñuy ay créateurs d' bi jam la jeexalee gëstoom vers quatre heures du matin ci la am nag résultat wu suñu enquête mu di Wally Seck du moom moo organisé affaire bi. Mhm. prestataire la ci. waaw nit ki nag bu fekkee ay waykatam ay fecckatam dañ def tooxi doon na grand théâtre nga plainte leen dal seen kaw ñu fëgg leen un mois de prison ferme bu dee Wally Seck daf fi indi saag yooyu di saagu góor jigéen ñu xeex ba mu bàyyi ko. mu indi fi t bi ñu xeex ba mu bàyyi ko alors bu amee coow lu ko topp nanga sàmmoonte ak li charia wax mhm. da ngay seedeel nit ki li am kon suñu gëstu li mu ñu wan mooy Tandian ak Mati Jaxate ñoo ko organisé Wally lan la ci kon prestataire la ci mhm. Tidali lan la ci prestataire la ci ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. ñoo xam ne dañuy ñëw def seen prestation ñu fay leen. Mhm. brésiliens yi def yu ñaaw yooyu te indi coow ci dëkk lan lañu prestataire lañ ci. Mhm. kon nag loolu dafa mat a leeral. dafa mat a leeral waaye préparé woon nañu suñu plainte contre Wally. waaye comme que euh, suñu diine dafa ne euh, euh, jullit bi wa ma shahidna illa bima alimna ne témoignez que de ce dont vous êtes sûr de science certaine ba ñu ko gëstoo. ñu gis ne Wally prestataire la ci alors kon ñun la léegi ak contre. les organisateurs alors organisateur yi léegi lañ fi yónnee nit muy benn lettre boo xam ne mu ngi nii Tange Tandian moo ñu ko yónnee mhm. moom ci ñi société Mat Event ci la bokk ñoom ñoo organisé soire bii am coow lettre bi lan la objet demande d'excuse ba ma ko liiree ma ne ko Tange d'accord ma mu ne ma ci lan ma ne ko du man nga war a présenter ay esquisse man duma ci dara man simple ndongo la kilifa yi mer laa dajale seen mer ni ma ko defee ci ci Ahmed Cissé déposé plainte les même kilifa ñoo mer ba sas ma ma enquête lii enquête naa ko nag du waali moo organiser événement bi yow la yàgg mati kon boo leen di jégalu bu leen ma jégalu boo indi di bu leen jégalu Jamra jéggalu leen mbooleem umma islamique bi ak population sénégalaise bi nga xam ne choqué ngeen leen dans leur sensibilité mhm. population sénégalaise bi nga xam ne euh, euh, violé ngeen euh, ce qu'ils ont de plus cher mu di seen passe-passe mhm. alors ñooñu ñooñu nga war a jéggalu léegi nag def na émission Seneweb tey la ñaata le tey tey le 12 lundi 12 mhm. dina jàll lundi 12 à 20 heures mhm. ci Seneweb jégglu na waaye nee naa ko man moom j'ai pas besoin d'excuse man dama relais rek la mhm. dama relayer meru nit ñi léegi nag booy jégalu nga jégalu nit ñi mer il appartient maintenant à la communauté musulmane ak kilifa diina yi ak këru diine yi Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba ñaseen Medina Baye Layène yi nga xam ne ñoo ma bind ne naa jóg ci il leur appartient maintenant d'apprécier ce demande d'excuse waaye du man maay naan nii walla naa waaw jot naa sa lettre jot naa ko léegi jéb euh, biiral nga sa kàdduna yaa ngi jégalu wax nga ko ci média bu mag bu mel ni Seneweb eggee naa ko fii tamit léegi nag ñooñu buñ ko déggee il leur appartient à eux d'apprécier mhm. mais un petit Makhtar Gueye est trop petit pour ma joxe ci appréciation alors comme c'était le cas avec euh, Ahmed Cissé mhm. boobu tamit man maa ci fës nii rek mhm. gën cee rëy làmmeñ gën cee sob waaye plainte bi ma def plainte bala la wan Njaasaan Thiénaba Ñaseen Medina Baye Laayeen plainte boobu moom lañ jox procureur mu daaneel Ahmed Cissé tëj ko kaso waaye du plainte Jamra Code mhm.